waaw naar kenn du ko jox lu baax. noo gisee noo gisee jéewaat ak say conseil ah non non non plaisir bi yëpp foofu la parce que tey ñu ngi ñuy wax mais mënoon nga football ay cinq dix minutes non lii dafa c'était réglementé am na euh, ëpp na sax parce que vingt minutes la nu may vingt minutes. inauguration la de du match match de galaare rek boo leen seetloo amul amul ku fay tamit di taakale di kii amul parce que match de galaare donc nous on avait euh, cinq minutes nous les anciens cinq minutes. après cinq minutes dañuy génn après jox yeneen xale yi nag ñoo xale yi daal koy mujjee nga mu daal di parce que mag dañ koy jox cër wala mu fi gaañu gis nga cër nu yum accéléré na tuuti rek yéegi yéegi rek ah daal di toog waaw.